suñu gan kon di wuyoo euh, ci turu Ibrahima fal nekk njiital commission des acteurs de la société civile pour le suivi des politiques maanaam kuréel yi nga xamante ni ñoo bokk ci société civile wi tey bàyyi gët bu baax nag euh, ci euh, pouvoir public yi ni ñuy tegee seen ay politique jëmale ci askan wi jamono yi nag ngeen doon amal benn jàngat bu yaatu jëm ci wàllu woowa waaye laata ñoo ñëw ci loolu est-ce que mën nga gën a xuusandi ci seen kuréel gi lan moo ko gën a tax a jóg a ah, jërëjëf soxna Awa ci invitation bi euh, suñu kuréel bi di commission nationale des acteurs de la société civile pour le suivi de la politique économique et sociale du Sénégal dafa nekk kuréel bi nga xam ne organe la société civile bi liggéey ci saytu mhm. euh, politique de développement yi gouvernement Sénégal di doxal mhm. ñu taxawloon ko depuis deux mille bi nga xam ne ci déclaration millénaire de de deux mille avec les OMD muy objectif du millénaire pour le développement euh, suñu nguur yi doon def ay politique de développement yoo xam ne day sukkandiku ci loolu ñu defoon nag cadre bii nii mu bokkoon ci dispositif institutionnel de suivi bi de la politique économique du Sénégal et depuis boobu mhm. muy liggéey ci euh, topp politique développement yu nguur gi di doxal ba tax at bu ne ñuy def ay rapport di ko jébbal gouvernement bi si li ñuy wax les revues annuelles conjointes nga xam ne mooy xayma bi de euh, nguur gi di def at bu ne pour xool tolluwaayu politique bi bi muy doxal boobu ñu ñu bokk si processus boobu bi si def ay contribution mm-hmm. ak euh, tamit bu bind euh, politique bi comme mooy moment bu ñu nekk nii nga xam ne Sénégal mu ngi bind top 3 bu PSE boobu aussi ñu ñu si préparé ay contribution di liggéey aussi si wàllu suivi ODD mooy agenda vingt trente Nations Unies bi les objectifs de si wàllu wooyu la mhm. ñu ngi ñu ngi nekk nag euh, juróom-ñaari couleur yu bokk si biir mu dañuy wax ay pôle mhm. kuréel bi nga xam ne dafa ëmb euh, organisation syndicat Sénégal yi mooy beneen bi nga xam ne organisation ndaw ñi la am bi nga xam ne organisation femme bi moo ci nekk. Mhm. benn boo xam ne organisation euh, personnes âgées yi des ñoom ñoo si ne euh, boo xam ne aussi les personnes a situation d' handicap muy pôle handicap ak pôle ONG Kongat ak pôle Colifas. Mhm. yooyu mooy euh, kuréel yi nga xam ne ñoom ñoo nekk si nekk ñi bokk ci commission bi di liggéey si wàll woowu. depuis 2000 ba tey ji 2023. Euh, mhm. euh, gi nu weesu rek siiwal ngeen benn rapport ñeel mhm. contribution gi ngeen def ci plan d'action prioritaire ci li ñuy wax PAP 3A euh, jóge ci plan Sénégal émergent lan moo wundu sabab élaboration boobu lépp document lan ngeen ci namoon. waa rapport bi ñu génnee liñ ci namm mooy Euh, dimbale nguuru Sénégal ba nga xam ne PAP 3 bi muy bi muy bind si bu PSE bi moo xam moo war a nekk période deux mille vingt quatre mille vingt huit ñu dimbale leen ba nga xam ne programme yi si teg dina dëppoo ak li askan wi soxla xam loolu moom la ñuy wax pertinence li mhm. wàllu action fexe ba li ñuy doxal see action muy mu méngoog dëgg dëgg li population yi soxla loolu mooy préoccupation ñun bu ñu gën a yitteel si bi ñuy def rapport bi mais si biir tamit dañoo def xayma euh, li nga xam ne jot nañ ko doxal at yi weesu si PAP 1 bi PAP 2 ba si PAP 2A. muy mm-hmm. di 2014 à 2022. Mm-hmm. ñu def si xayma li nga xam ne doxal nañ population bi nan lañ ko gisee ba di yëg-yëg lañ ci am euh, xool tamit organisation société civile yi yan rôle lañ si mhm. ba pare doog si proposer ay. xelal recommandation yoo xam ne ay xalaat yoo xam ne. yu yi nga xam ne nguur gi mun na si tënku. Mhm. pour euh, saafara jafe-jafe askan bi. Mhm. bi ngeen wàccee ci terrain bi ci yan domaine de développement ngeen gis ni fa euh, nguur gi pouvoir public yi kon gën a lajjee. waaw biñ jamee ci terrain bi gis nañ ne ci secteur yi mel ni euh, xëyu ndaw ji mhm. muy l'emploi des jeunes foofu am na ay jafe-jafe naam am na effort yu bëri yu ci yu ci yi gouvernement bi def mobiliser ay moyens teg ko terewul jafe-jafe yi mu ngi am ba léegi leneen mooy ci wàllu ci wàllu mbay mi aussi mbay mi gis nañ ne jafe-jafe yi ba léegi dafa am ci gox yeeg goxaat yi mhm. gox yi bëri am nañ jafe-jafe pour di am ndox parce que dañoo gis ne Sénégal dëkk bu arrosé la donc war nañ mën a liggéey ci programme maîtrise de l'eau fexe ba nit ñi noor ak nawet ñi am ndox mën di béy ci gox ak goxaat yi loolu jafe-jafe la wàllu jumtuwaay yi tamit jumtuwaay yu mucc ay ñu mun ko am loolu nekk na jafe-jafe leneen tamit mooy intrant yi ay lu wàllu ay engrais yu demee noonu ay semence semence yi nga xam ne euh, méngoon na ak changement climatique yi léegi ñu mën ko di am yooyu yëpp bokk na ay jafe-jafe yoo xam ne gis nañ ko si wàllu jàngit tamit gis nañ jafe-jafe yi si am ak xale yi nga xam ne am nañ ay besoins yi nga xam ne bëgg-bëgg ñu war a jël en compte muy xale handicapé yi ak euh, xale yi nga xam ne ñuy wax ay migrants. dugal si mm-hmm. yeneen dëkk ak xale yi nga xam ne tamit. Euh, amuñu kayitu juddu. Mhm. yooyu yëpp nekk ay jafe-jafe yoo xam ne dafa bëri ba léegi. yeneen si wàllu jàngi si wàllu santé bi ñu gis ne euh, équipement yi war hôpitaux yi si gox yeeg goxaat yi amuñ ko ba tax na nit ñi di am ay jafe-jafe pour am ay soins de santé yu war ba di tax ñuy jéggi ay ay région di dem di ko te loolu yaakaar nañ ne jafe-jafe la la bu bu bu mag a mag Mm-hmm. Euh, ba si wàllu protection sociale bi aussi ba tey gis nañ si ay jafe-jafe yoo xam ne nguur gi euh, am na yi nga xam ne comme carte d'égalité des chances yeeg yooyu euh, yooyu ba léegi si biir effectivité bi pour mu am jëmbal ko dafa des mm-hmm. yooyu gis ne ay rëkk-rëkk la ba léegi mu ngi am si wàllu bonne gouvernance aussi ñu gis si ne si biir état de droit li ñuy wax séparation de pouvoir ba léegi mënagul effectif Sénégal am na ay jafe-jafe yu ci gis ñu ne tamit le régime très présidentialiste du Sénégal nekk loolu. Euh, problème la nekk na benn rëq-rëq bu mu indi. Mhm. ak tamit euh, wàllu jàmm ak sécurité nit ñi yooyu tamit bëri na ay rëq ay jafe-jafe yu si nit ñi di am fu nekk nii. Mhm. jàmm gi jaaxal na nit ñi ci situation bu ñu nekk ci Sahel bi. ak li ñuy dégg si réew yu ñu wër euh, muy menacer Sénégal yooyu yëpp ñu xal ak ñu gis li suñu frontières yi sécurité bi nu mu desee loolu nekk na li inquiété nit ñi si yenn gox yi yooyu yëpp ay jafe-jafe la yoo xam ne bi ñuy def diagnostic euh, génn na fi ba looloo tax ñu ne si ñu ñu jot a enquêté mm-hmm. jëlee téeméer bu de juróom fukk ak yi dañ na gisuñ seen bopp ni mu waree si réalisation PAP PAP 2. ak PAP 2A yi. d'accord yooyu mooy élément diagnostique yi nga xam ne génn na si si rapport bi. monsieur Fall beneen seetlu bi tam mooy euh, seen naataango yu bari ci li ñuy yëngu mooy wàllum àq ak yelleefu doomu aadama yi maanaam droit de lam ñu gis ni wàllum koom ak suqaliku liñ ci faral di sóobu bëriwul lan mooy faral di waral lool ak ban gis-gis it nga ci am. waaw c'est c'est vrai société civile tamit. Euh, dafa dafa vaste compétence yi ak domaine d' intervention yi dafa bari. Mhm. parce organisation société civile yi ñu ngi yëngu ci domaine bu nekk. waaw xam na ñi nekk ci droit de l'homme ak ñooñ la ñuy gën a faral di dégg. la ñuy gën a faral di mais sur les question de développement social boo demee ci terrain bi organisation yi ñu ngi ciy def liggéey bu am solo di mobiliser ay moyens di ko def. moo xam si éducation ci santé. Mm-hmm. Euh, si si si euh, autonomisation des femmes emploi des jeunes si ay assainissement ak yeneen ak yeneen secteur yëpp daanaka société civile de si daf liggéey di si mobiliser nag xaalis bu takku ay moyens yu mag di ko si mm-hmm. pour accompagner pouvoir euh, pouvoir public yi. Mm-hmm. waaw mais comme lële wàllu élection. wàllu politique. politique yooyu voilà ay plaidoyer la yoo xam ne mooy mooy gën a visible mais euh, ñu jàpp ne ce secteur yëpp ñu ngi jëngatu. di si mhm. def seen saytu bi it wane na ni lu bëri lu nekk ci société civile bi di ay nit danoo tàmbalee màggat euh, loolu lan moo koy expliquer. waaw loolu c'est vrai que société civile euh, composition bi. c'est vrai que étude bi loolu la génnee ne jeunes yi engagé wu ci si liggéeyu société civile parce que lu tax li ko sabab dañ ne si étude bi tamit bokk na si lu daanaka liggéeyu société civile yëpp bénévolat la. Mhm. loolu tamit amul ay koppar. dina attirer jeunes yi pour ñu sawar pour dugg ci parce que ku nekk jeune tamit liggéey bi ngay wut mooy bi nga xam ne. da nga siy faj say soxla di si dimbale say waajur. donc loolu nekk na point bi nga xam ne sax moo ko gën a sabab. Mhm. ba jeunes yi duñ am temps trop pour pour du si pour du dugg. Mhm. Euh, donc loolu tamit nekk moment si relève. relève sociale civile. mais est-ce que yéen a leen ciy ñaax parce que tam quoi qu'on puisse dire y a une dose de citoyenneté boo xamante ni war na xiirtal ndaw ñi ñuy sóobu ci wàllu wàllum bénévolat boobu nekk ci société civile bi. waaw waaw loolu loolu ñu ngi liggéey société civile da siy liggéey di boo xoolee organisation yu bëri léegi ñu ngi mettre en place même des cadres de jeunes. Mm-hmm. yoo xam ne cadres yi boo xam ne ay jeunes lañ fay dajale. pour pour mën di liggéey si wàllu yooyu di leen euh, préparer di leen sensibiliser di leen former. Mm-hmm. pour tamit ñu mën a am taxawaay ci mbir bi. yooyu euh, société acteurs yi léegi ak organisation yi comprendre nañ ko bu baax. Mhm. ba ñu si bëri ñu ngi liggéey di si def joge yu mel noonu. très bien alors ñu ñëwaat rek ci li nga xamante ni mooy étude bi ngeen def bëri na ay euh, kon ay problème ci secteur yu bëri wàllum développement def ngeen ay recommandation maanaam ay xelal est-ce que mën nga ci ñëwaat tuuti. waaw def nañ euh, gannaaw bu ñu defee saytu bi ba pare si loolu lañ sukkandiku ci jafe-jafe yooyu pour proposer gouvernement bi ay fiches de solution. Mhm. yoo xam ne. war nañ ko jël ci FAP 3 bi pour mu jooyanti loolu ci recommandation yi bu jëlee lu mel ni axe 1 bi pour na pour ñu am transformation structurelle économie bi xalaat nañ ne wàllu mbay mi nañ ko gën a dooleel te loolu dañ ne pour ñu dooleel ko li ñu proposé gouvernement bi mooy li nga xam ne mooy ci jiitu mooy la maîtrise de l'eau investissement yi ñu gën ko ci orienté ba baykat yi pour mu munte nekk de delà de l'hivernage euh, euh, au-delà de nawet bi buñ ko weesoo mu mën sax continuer di bay mhm. di am ndox di bay euh, loolu am solo la te loolu Sénégal am na ndox ay investissement rek la laaj pour ñu mën a pour ñu mën a am loolu leneen moo ne yu jëmee ni wàllu foncier bi tamit war nañ fi gën ko sécuriser foncier bi nga xam ne ñu ngi koy bay parce que gis nañ zone yu mel ni zone Niayes urbanisation bi da ko menacé da ko menacé bay bi bu baax foofu te xam nañ solo bi am légumes yi ñu fay bay ñuy dundal ñuy ñuy approvisionner Sénégal euh, yeneen tamit mooy yu jëm si wàllu engrais yi ci wàllu semence yi parce que dañoo nekk ci contexte changement climatique boo xam ne béykat yi war nañ dooleel war nañ leen dooleel mm-hmm. ñu mën di am semence yoo xam ne dina mën a ak changement climatique yi yi xew léegi pour bay bi gën a mën a dox loolu dañ jox nañ ko comme ay proposition leneen mooy wàllu euh, industrialisation bi usine yi ñu doxal ñu dekkilaat usines yi si gox yi ak goxaat yi parce que usine moo mën a créer emploi décent en masse te industrie rek moo ko mën comme industrie ni amee woon Sénégal baax na léegi ñu si yi ñu gën ko ci doole laat dektalaat ko parce que dañoo gis ne gox bu ne ñu ngi fay bay te industrie agroalimentaire doxul bu baax Sénégal pour mhm. transformer loolu ñuy bay du ko jaayee fii euh, buñ si gisoon mu dox dëgg benn exemple buñ mën a cité bu mel ni Sonacos euh, si gerte gi euh, ak li mu doon employé si ay nit si diggante quatre régions yi Dakar Kaolack Diourbel ba Ziguinchor mhm. genre modèle yooyu war nañ ko développer si yeneen filières yi filière agricole yu am moo am ay usines si gox yeeg goxaat yi loolu mooy tax nit ñi toog fa mën a am liggéey exode rural yi mën a mën a wàññeeku loolu tamit dañoo gën dañuy ñaax gouvernement bi ci loolu si deux mille vingt trois bi loolu mu gën ko mu gën ko jëmbal fi wàllu xëyu ndaw yi aussi emploi des jeunes ñu gis ne liñ si def ci moyen bëri na euh, intervention yi bëri na ñu proposé gouvernement bi ne na def ay ay mécanisme yoo xam ne dina gën a gouvernance bi dina ko assurer mhm. loolu yëpp mu am coordination ñëpp mun intervention yi mun a leer mën a gën a efficace mhm. si lañ proposé li ñuy wax l' observatoire national pour l' emploi des jeunes ñu taxawal ko Sénégal pour mun a régler mun di jooyantu yooyu mhm. parce que gouvernement si wàllu emploi teg na ay mécanismes ay financement ak yooyu mais pour emploi ñu créer ko yu décent dañuy dooleel secteur privé ñu defaree usine créer emploi mhm. loolu moom loolu moom ko mën a saafara yooyu yooyu génn na bu baax si comme recommandation si action bi mhm. pour jafe-jafe santé yi aussi yi population yi di jànkuwanteel si gox yi dañoo ñaax état bi ne gouvernement yi ne région bu ne Sénégal nañ fexe ba am lu ñuy wax hôpital de niveau trois mhm. nga xam spécialité yëpp ak service yëpp dina fa am lu jaar ngay génn région ba région di def IRM wala scanner wala leneen ñuy jëm ñu mun a am accès facile aux soins de santé si seen gox yi loolu tamit euh, bokk na si recommandation yu yuñ ci génne si si si accès accès deux bi wàllu protection sociale bi aussi ñuy demander que comme recommandation euh, lu ñu wax le registre nationale unique pour intervention yi si protection sociale mën a a efficace leer que ñu actualiser ko risque boobu mhm. seet nuñ koy yokkee bénéficiaires yi nekk si biir mhm. loolu tamit bokk na recommandation boo xam ne euh, laaj laaj nañ ko euh, ak si wàllu développement durable aussi changement climatique euh, ñu fexe ba programme développement durable yi ñu ko gën ko dooleel ba nga xam ne surtout lu ñuy wax écologie pour euh, bay bay bi nga xam ne day polluer bu baax mu mën a wàññeeku ak euh, euh, la RSE aussi bi entreprise yi di doxal ñu codifier ko ba nga xam ne nañ ko mën a teg si yoon parce que dafa génn si zone minière yi dans à l'est ak Thiès que industrie minière yi ni ñu RSE bi respecté wuñ pratique mu leen neex lañ koy def mm-hmm. donc dañ ne gouvernement boo si loolu dafa codifier ba nga xam ne ñoom engagement yooyu ñu am ci RSE population yi du ci bénéficier bu baax a baax. très bien. ci wàllu axe 3 bi bonne gouvernance aussi noonu. recommandation yu mag yu ñu ci joxe bokk na ci wàllu séparation des pouvoirs ñu jëmbal ko. Mhm. Euh, fexe ba aussi pouvoir yëpp am seen indépendance. Euh, wàllu xee jàmm tamit ak sécurité. ñu fexe ba nga xam ne sécurité population yi nañ ko gën a mën a renforcer ci situation yu ñu nekk. Mhm. actuellement ak Sahel bi li fi xew ak li wër Sénégal yëpp baax na lépp luy sécurité ñu dooleel ko bu baax ci biir ci biir PAP PAP 3 bi yooyu yëpp ay recommandation la yoo xam ne génn nañ ko ci ci rapport bi. Mhm. pour gën dimbale nguur gi ci orientation yi nga xam ne. Eh, da koy jël. Mm. am na solo lool Ibrahima Fall kon jërëjëf. jërëjëf soxna Awa. fàttali ni yow yaay njiital commission des acteurs de la société civile pour le suivi des politiques ñu yendoog jàmm. jërëjëf